géej gi naqari na naqari boo xam ne ne bato yi ñu jaay ñooñu ko teg amatuñu jën bu baax jën bu baax bu ñu nar jël waa bato yi yenn ko yu sew xoolal lii mu ngi nii lu seer lañ ko jënde mënuñu fexe ba jaay ko jën yu mag day am fii ay sëddax lépp fee am gis nga ko nii mënuñu fax fexe ba jaay ko ndax mitit bi dafa ëpp dafa ëpp torop torop bato yi ñëw ba fii di fi napp si te kenn du leen wax dara metti na ma ne la fii ngay taxaw bu guddee boo taxawee fii seen bato yi ñuy napp. fii yoof gi du yabay kenn mënatu ko gis waaw yabay mel na xam nga yabay mel na kenn mënatu ko gis ngot kenn mënatu ko gis jay temps en temps la fay ñëw talla temps en la fay ñëw coof temps en temps la fay ñëw dara mënatu fem dara baase. doy waraañ dañu ko daggati fee gaal la deme ko ñëw nii mais ma amatu fi filee nag bu njëkkoon gis nañu ñi nga xamante ne ñooy mool yi dañ daan fees fii dell jóge géej ànd ak seeni jën jaay ak jënd ñi leen di jaaykatu jën yi wante bi lay yoon leneen lañ gis géej gi dafa sàmbara ñi leen di mool jaaxle dëkkal na leen ñu ngi toog di naan ataaya ak xaar yàlla ñu wax si ñoom rek laaj leen lan moo waral lu ni mel. nun mool yëpp laa wax man wax ma boppa mool yi si àddina bi yëpp sonna nañu façon sonna woo xamee ne xamuñu fa ñu koy jooytoo amuñu fenn fu ñu aw amuñu fenn fu ñu jaar la mooy toog rek bàyyi kax yàlla rek. Euh, ñu gis leen ngeen dug jóge géej da ngeen demoon euh, uti jën wala. waaw dañ uti woon jën mais yàlla def amuñu jën ñu ñibbisiwaat waaw. ngeen duggoon biir géej. depuis ay sept heures et demi yooyu lañ duggoon si géej gi mais géej gi daal amul jën instant yi moom jën ñàkk na lool lool lool lool lool. ñàkk googu depuis combien de temps ngeen ko nemmeeku. depuis dix ans ngi nii géej gi day gën a ñàkk jën li gën a jafeñ mooy yabay bu daan tuuru si tefes gi kees cinq cent léegi mënatoo kaa teg bët. dafa mel ni da ngay waajal dem biir géej wala da ngay doog a jóge. noo damay dem nii damay damay dem nii dama nekk si période pour dem nii waaw. yow chaque jour da dem wala. waaw sa temps en temps ñu jekki saar teg la def ay ñaari semaine wala semaine mais bu ñu ko géej gi mayee mais suñu ko mayul tamit dañuy toogaat xaaraat ba kara yàlla di def jàmm quoi. à kañ nga gëj a dugg biir géej. toog naa 4 jours xaw ma 5 daw ma géej ah. ko kaay rek. waaw dañuy dem géej xam nga diigal fere ñëw loolu dafa metti yaa ma gën a xam après ba pare li ngay ut doo ko am maanaam mën nga am mais li ngay am du bari ngay eh, am touti muyo yem ci njabot ki affaire yoy nonu xam nga après nga ñëwaat tok japp sa njaam ay at yi passé dundu gu neex la mo li daan dundu wa deug yalla ci xayma war na dem ay euh, ñeen fu kat fan wéré tak yoy yem ci kanam mais boobu dundu gi neex na lool mo li dañu am jën carrément ñi bal am jën carrément même ñi dox sax dañuy fëri jën mais légui kégal mënu am dara ci dara man mii démb de mën naa gëj sama gaal ñeent di ngàtte laa jàpp. ay xala yoo xam ne ñun ñu suñu àdduna mais am na ñoo xam ne tey bii nii bu ñuy dem géej instant bi bu ñu la waxee ñoom la ñuy fere yow doo ko saa bu la neexee nii sax di nga jékki sar ne loolu amul ko wala du ma ko gëm te alors que ni loolu moo am billaay. Euh, li ngeen di frais ak li ngeen di jot jamono jule bokkul da ngeen di frais ba pare perte wala. waaw bari na lu nit di fere nii perte mais bari na tamit lu nit yàlla dimbali ko. mu génn si mu dem sa yalla dimbali ko mu am dara waye tamit bu ñëwee tamit loolu mu ngi xolaat yenen ay ay bor yo yo xam ne mu ngi ko fi bayyi waaw bu ñëwee après da kay fay. géej gi neexon na bu jëk lo am am jën am jën yu rafet yu baax ku ñëw tim sa place du dem waye legi amatu fi ñu lu ñu neex dal si géej gi ñu dara lu neex si géej gi ndax gisunu fi dara lo ne ne sedd na xol lu metti xol rek. dañuy ñëw dinañ fi yendu yenn si suba ba jant so doo fi am benn 5000 te bu njëkk man ngaa xëy ba lay 10 heures nga jaay lu mat fukki junni ndax boobu jën am na suñu xol seddoon na waaye léegi gisatuñu dara gisatuñu dara de metti na de ku leen wax mettiwul day wax lu ko neex. Babacar yow da ngay jënd si bateau yi ñëwaat fii di jaay. waaw waaw damay jënd di jaayaat. mbir ngi dox. bon tuuti tuuti rek. bon parce que boo xoolee liñ daan jëndee jën boo daan jënd daanaka boo daan jënd kees vingt mille léegi yaa ngi jëndee kees quarante quarante cinq mille daanaka dafa doublé. Macky Sall jaay na géej gi chinois yeeg européen yëpp géej gi moom jën moom day gën a ñàkk gën a am moom mënatul nekk mais day gën a ñàkk xoolal gaal yi dëkk fii Yoff xoolal comme gaal gale ay cent quinze kilomètres la ñuy daw fanaan pour mën am jën loolu xam nga moom catastrophe la moom. des fois da koy dégg ci pêcheurs yi ñu ne bateau de pêche yi euh, li ñuy napp ci géej gi jaaduwul waaw jën yu sew yi war a màgg ñu napp ko léegi boo nappee boo nappee yu sew nooy amatee jën yu mag. contraintes yi dafa bari trop trop. yaa xam it tamit dafa bari waaw géej gi moom amul sécurité moom waaw. même jën yu sew yi ñu daan gis sax si tefes gi gisatuñ ko. waaw géej jën yu sew gisoo tefes gaa ngi ni jën yi dañ daan teer lu ko waral eh, amatul yoos yoos boobu bota yi dañ koy mbaal bota yi mbaal ton bi ñoom dañ koy mbaal fii yóbbu ko biir géej buñ demee sotti ka pour mën a jàpp ton bi. lan ngay wax nguur gi nga xamante ne ñu ñenn si yéen jàpp nañ ñoom ñoo fi indi bato yi ba yéen eh, jotoole woon si jën a ah, bu ñu dimbalee de moom en tant que jeune ñun ñii ñun ñun liggéey rek lañ gëm xamuñu leneen lu dul liggéey jaamu yàlla dem géej wallaay asim ñu fenn waaw kon na bu ñu si nguur gi jàppale loolu si géej gi nii comme wàllu bato yeex yooyu noonu dinañu arranger daal parce que duñ fi nekk di dem ay jël ay gaale di dem clandestin affaire yooyu noonu parce que nit ku nekk sa dëkk doy na la comprendre nga ñun liggéey toog suñu dëkk liggéey suñu dëkk suñu dëkk développé munu gënal fuuf waaw parce que man mii di waa am ay morom xam ñu ngi dem dem nañ clandestin bàyyi ma fi waaw te ñooñu ñëpp ñu ngi seen soxna seen dom ndax géej gu métti te si géej la ñuy liggéey gis ngeen nappkat yi nekkee fii ci yof naqar bi ñuy wuti jën gisuñu dara jën yu sew yañ daan tasanteel sax bi lay yoon amuñu ko géej gaa ni dara amu fi ña demoo nuuru ji biir géej ba ñu dikkee loxo yi neen lañ daal di indi ñay xaar sax suba ñu dem seenu dem wóorul ndax seen gafa ga dara ca fekk jamono yi nag seenub dundin wàllum napp metti na lool ak luñ ci mënti jàpp rek ñu xam ne ñàkkum jën bee ko waral ndax nag ñenn si ñoom ñu ngay jàpp ni bateau de yi nga xam ne ñooy napp guddi gi ñoo ko waral ñeneen ñi nag ñoom jàpp ni ndogalu yàlla la mu nekk lu métti lool jërë ngeen jëf.